mbokk jullit yi ñi ngi doore suñu kàddu ci tur borom bi subhanahu wa moom mi nga xam ni lu ñu doore turam yi mu barkeel ko ñu ngi làqu tamit ci moom di muslu ci moom di ko ñaan mu muccal ñu ci iblis mi nga xam ni mooy yàqkatu jëf yi waaye di ko sant itam bim ñu defee ñu nekk nit di ko sant bi mu ñu yónnee yonent bi nga xam ni moo ñëw génn ñu ci lëndëm indi ñu ci leer di ko delloo njukkal ci boole gim ñu boole ci ummatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon alhamdulillahi ala kulli xaal alhamdulillahi xatta tarda julli sëlmal ñaanal suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ngi dotti xéewali ci kawam mu yokk ko moom ak ñi nga xam ni ñoom la àndaloon dajoon lu méttee métti ci mission bu rëy bii dajoon ay jafe-jafe ci lii nga xam ni moo ubbi dënn yi leeral xel yi ba nit xam fan lay teg tànkam te moom mooy diine islaam ñi nga xam ne ñoo ko accompagné woon ànd ak moom itam ñu ngi leen di ñaanal borom bi subhanahu wa taala sëmbaxtal yiw yi ci seen kaw ñu ngi leen di nuyu nuyu islaam nuyu bi nga xam ne mooy nuyoo waa waa aljanna nuyoo bi nga xam ne bu nit xamoon li muy firi boo rombee nit doo ko wax bonjour bu dee ngoon doo ko wax bonsoir mais danga ko naan asalaamu aleykum yal na jàmm yàlla nekk ci yow ñu ngi leen koy nuyu di leen ñaanal jàmm xéewal ak tawféex yàlla defal leen ko bu ñu fi yemale ñaan gi dañuy bëgg mu law ci àdduna bi yépp waaye lawaale ci dëkk yi nga xam ne ñoo ñu wër waaye senegal gi nga xam ni yàlla moo dogal ñu dëkk fi yàlla def fi jàmm ñu ngi koy ñaan borom bi subhanahu wa taala di feeñal suñu mbégte suñu kontaante ci occasion tuyaaba bi ngeen ñu may tuyaaba nit daf koy fàggul boppam nit dina ko may nit nit day fàggul boppam tuyaaba mais jullit dina may moroomu jullitam pour mu mën a am tuyaaba te lii ci la bokk kon ñu ngi leen ciy gërëm yéen ñi nga xam ne ay ndaw ngeen taxaw macha allah nekk ay jeunes yoo xam ne dangeen bëgg a ràññeeku ci seen diine ñu ngi leen di ñaanal seen initiative yi ngeen xam ni mi ngi nekk seen kanam li ngeen di jël di ko doxal yàlla na ko yàlla barkeel dangeen ngeen egg fi ngeen bëgg a yegg ndax lu taxaw ay ndaw ñoo ko taxawal thème bi ngeen ñu sant pour ñu jéem ko waxtaane thème bi dañ ma ko envoyé audio ma ne sama boroom kër déglul ma thème bii mu déglu ko reetaan ne ma waxtaan bu yomb la ma ne ko ah papa mu ne waaye waxtaan bu yomb la nee na nga waxal leen fan lañ mën a féexale seen xol ma ne ko islaam moo ñëw leeral dana yi féexal xol yi bi yàlla tànnee suñu sang bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu laataa ñëw dafa fekk xol yi xat nit xamul woon sax lan mooy féexlu ndax boobu ñoom lañ daan tuddee féexlu nekkul woon féexlu mais notaate la tuddoon ak contre nature ndax contre nature mooy nit di def loo xam ni bokkul ak tabi'am natiiram natiiram mooy dund dund goo xam ni bokkul ak bi la yàlla sant benn jigéen dafa bind benn livre tuddee ko ay na saada di laaj moom milliardaire la mais daal dafa bëgg am bonheur te dañuy wax ni doon na dugg sax ci benn otel fanaan fa xëy di fay ñu ne ko fii yow yaa ko moom ndax bari alal bërëbu fokkaay yi miinoon nañ ko mais bi mu duggee ci diine mu laajal ñi nga xam ni nekkuñu ci diine ay na saada nit fan lay retrouver boppam nit fan lay amee féexu xol nit fan lay yégee ni moom am na bonheur mel ni benn question la boo xam ne daf ko posé mais mu tontu boppam ne ci islaam la nit di amee li nga xam ni moom mooy bonheur saada bu ko nit bëggee am day topp liiñ bi nga xam ni moom la ko yàlla rëddal loo am lu mu bari bari islam moo lay organiser nan nga koy gérer ba du am problème loo xam lu mu yaatu yaatu islaam moo la koy organiser ba doo màmm kon diine moom dafa ñëw pour la lépp yemul rek ci julli kese yamul ci kooru kese yamul ci jàngal ñu naka la ñuy génnee azaka ci ñi ko man waaye dafa jàngal doomu aadama benn marxala bu am solo boo xam ne dafa nekk ci diggante ñaari lompoñ muy diggante tufuula ak shayxuuqa loolu moom mooy ashabab genes daa nekk ci diggante ñaar muy ki ndaw xale bu ndaw bi nga xam ni juddu na yàlla dëxañ ci moom xel munu koo utiliser def ci moom doole mënu koo génne mu dem ba am fu mu toll mu commencé di génn ndànk par ndànk mu dem bu passé état boobu day dugg ci beneen marxala mooy shayxuuqa dem nag ba commencé lim mënoon ci jamono boobu mu commencé di ko ñàkk def naa loolu la ñuy waxtaane tey foofu la ñuy concentré suñu waxtaan mooy ndaw ci boppam taxawaayam kan mooy ndaw pour waxtaan wi ñu mën a yegg ci li ngeen ñu sant pour wax ndaw fan lay mën a féexalee xolam il faut loolu moom moo koy jiitu dañuy dellu rek ci alquran lay taay la suñu waxtaan ñaari xissa xissa bu njëkk bi yéen ñépp xam ngeen ko mooy asxaabul kahfi xam nga yàlla ni muy waxee bokkul ak ñun ni ñuy waxee ndax moom mooy allaamul ulum bi muy nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu commencé sax moom moo neex am solo yàlla dafa yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay problème rek wër ko alquran miracle la pour mu soulager wu moo tax bu jibril musaan ñëw ci moom ba wàccee alquran ba pare bu koy wàccee day yëg coono mais su paree day féex ndax loolu mooy li nga xam ni moom mooy système de vie bi nga xam ni nit foofu la war a mën a tënku muy alquran borom bi subhanahu wa taala ne ko comme bi nga ñëwee ay ndaw ñoo la jàppale te yow itam ndaw nga di ko yàlla di yónnee mi nga am 40 ans 40 ans dañuy wax ni moom mooy digg ndaw donte léegi nag ko am 40 ans mère boo amee 40 ans paa ngay dégg mais 40 ans moom mooy digg ndaw dañuy wax ni ndaw li bu nekkee xale ba ba muy am 15 ans jàpp 20 ans xelam ak yaramam dañuy ànd di dem mais su amee 20 ans yaram bi dafay arrêté xel mi commencé di continuer diggante boobu nag mooy diggante bi am solo moo tax yàlla def ko tudd ci alquran lu baree bari moo tax bi muy jàngal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam asxaabul kahfi lan la yàlla wax innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda fitya yàlla ne ko kaay ma nettali la ay ndaw yoo xam ne ñoo fi jiitu woon am luñ doon dund loo xam ni ca lañ juddu woon ci jaamu xërëm ci njaaloo ci fo ci naan sàngara ak képp sa moroom doole woon ko ko mais ñoom ñu dem ba xam ni système bi bii normal lii du lu normal pour tënkal la xisa bi buur ba fa nekkoon Daqyaanus moo woote woon benn ndaje boo xam ni par annuel la ko doon def ñoom ay ndaw lañu ñu gis ni journée boobu li fay am mooy fecc way góor ñi tëdd jigéen ñi ku nekk def du la neex après nga ñibbi bi ci gën a metti mooy chaque année dañ doon jël benn xale bu jigéen rayal ko seen yàlla yooyu xale bu jigéen boo xam ni mosul sëy ku musul jaxasoo ak góor ñu reyal ko seen yàlla yi mu nekk genre neexal ñu neexale ko ko bu tasee ñu ñibbi ñu xool xam ne lii nekkul lu jëm kër est-ce que loolu moom moo tax yàlla bind leen ñu ne kenn moo njëkk a nekk ci programme bi di xool ni muy déroulé kenn roccee ko dem toog ci benn suufu garab mu toog ba mu yàgg keneen fekk ko fa ba ñu nekk mbooloo borom xam-xam yi dañoo wuute ci nañu toll alxuraan jàngal nañu ko mais lu mën a am ci li ñuy waxtaane tey borom bi subhanahu wa taala ne yonent bi neen ndaw ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow bu ñu am benn problème ndax am na ndaw yu fi jiitu woon yëg ne na yëg ne àdduna ay ndaw ñoo koy doxal àdduna mënul dem sans loxoy ndaw moo tax yàlla ku mës tànn di la yónni rek ndaw ngay doon fa lamma balaga ashuddahu aataynaahu hukman wa ilma mooy am na foo xam ni xale bi su fa tolloo léeg-léeg mu nax sax papaam te pourtant papaam tolloon na noonu lan moo tax mu mun koo tegal dil génn ci mooy fa mu toll moo tax am na foo xam ne bu fa tolloo léeg-léeg mu nax yaayam et pourtant yaayam toll woon na ni moom mais fa mu toll moo tax mu mën a teg yaayam dil ba génn ci te te du mujj fenn des fois xam nga xale yi ñoo gën a muus muus goo xam ne nag muusu yeewu teg nasaraan la boo xam ne da koo tënk ci ay matériel tënk ko ci ay objet yoo xam ne mooy mëdd xelu xale bi mu yaakaar ne loolu mooy àdduna te fekk na àdduna moom sori na loolu lool moo tax ñu bëri dañuy noyé ci biir jàpp ne niñ la présenté ci ay ndaw yoo xam ne ay franc ñoo leen di formé ay juif ñoo leen di formé ndaw li ñàkk xel ci beneen côté am xel ci caay-caay day def ni kooku war na koo mën a mat idole te fekk mu ngi juum jamono bu am li am tey amoon na ci jamono yi paase woon bain de minuit yi ngeen di dégg nii ak amoon yu gënoon a pire moo gënoon a am islam moo ñëw islamiser ko defar yëpp rafet defar ko ba mu ba mu moo tax ñoom seen xew boobu lu nekk moo fa daan am seen dajaloo boobu bi ñu génnee dajaloo xalaat ni li fi nekk war nañ koo changer moo tax réew ay màgget duñ ko soppi dañuy toog du joxe xalaat mais ay ndaw ñoom ñoo koy soppi mag am na foo xam ne bu fa tollooy am na xel mag mat naa bàyyi ci réew mais ban façon mag mag mu am xel mag mu jege boroomam mag du yàlla mais yàgg na ak yàlla kon taxyir bi nga xam ne sax ñun bëgg nañ ko suñu réew ku yaakaar ne mag moo ko fiy def dangay nax sa bopp de dangay jàpp ni man mën naa changer système bi ñuy dund tey muy suñu njiit yi dañoo am ñu leen jiite ñu leen di orienté ñu leen di xamal di leen waxal te ñooñu ay franc lañ pour mu leer soo naan ay nii lañ ay nii ay franc ñoo leen jiite moo tax ku ci nekk rek da ngay nekk franc-maçon li gën a bari moo tax sànq même li Mansour doon wax ba ci média yi des fois ñi koy jiite léeg-léeg ay franc-maçon la ñuy doon ay borom alal lañ yooyu la doon yoo xam ne dañu nekk ay franc-maçon yow miy dund sa diine nag soo gëmul sa diine et gëm sa bopp ndax nit moom œuvre yàlla la ñoom ñoo lay orienté fu la neex day mel ni bët ñoo yor sa bët fu la neex ngay xool loolu nag ñun moom duñ ko nangu ndax lu moom la euh, mahma taala laa budda min tuluu'il fajri waaye wal umru mahma taala laa budda min duxulil xabri dund moom lu mu yàgg yàgg di nga teew sa kanamu borom te actuellement toll nañ foo xam ne ku ñu suul fàtte nañ la lu dul ñi baax di la yónnee ay ñaan boo jëlee sa dina jaay ko jënd ko paytu àdduna xamoo fay mujje bu dee alal la bu dee oto la du ko jar bu dee kër guñ lay dëkkal la du ko jar bu dee benn compte banque la boo faatoo doo ko yóbbaale kon lu dul diine diine moom moo ko gën borom bi subhanahu wa taala li tax ma indi aaya bi pour ubbeeku suñu waxtaan mooy dafa am loo xam ne ndaw moo koy jëlal boppam yàlla fekk si ko ca moo tax suñu benn magu doon na wax naan sabab lu leen te bu leen di sukkandikoo yëngu yi def naa ko liggéeyul doo fayeeku de ñoom bañ jigéen ni am na lu xew seen dëkk neexu leen dañoo jug pour pour war koo mën a changer kon changement dafay ànd ak tadhiya dafay ànd ak azima day ànd ak sacrifice ak li nga xam ne moom mooy dogu lañ doon dund neexoon na lool ci ñoom mais xel mi leen dugg te ñu nekk ay ndaw li tax borom bi subhanahu wa taala bind ko dugal ko ci saar bi nga xam ne saar la bu am solo muy sóoratul kax bi tuddee leen ko nga xam ne yonent bi day wax ni boo ko jàngee àjjuma ba àjjuma bi du ñëw dafay nekk leer sa diggante àjjuma bi ak àjjuma bi nga xam ne moom ngay dëgmal si aay yi ci nekk dafa am solo waaye surtout lim ñu leeralal fii mu ne ay ndaw lañu yoo xam ni dañoo gëmoon seen borom gëm gi xol du féex nit ku nekk na jàpp ni xol du nekk loo xam dafay nekk faraar amul dara lu ci nekk loolu mënta nekk xol dafay am yàllaay kese mu am yu mu àndal teg la ci njub nga mën a dem wala mu am seytaane piir am yu mu àndal teg la ci safaan tamit nga mën a dem te doo yegg fi nga jëm mais xol boo xam ni amul dara yàlla bindeewul noonu xol daa bind xol pour am yoo xam ni moo fay nekk moo tax boo xoolee cëru doomu aadama ay feewu doomu aadama ay jëfinam lépp yàlla daf ko branché ci xol dafa mel ni mooy compteur soo meree foo ko yëge ci xol soo kontaanee foo koy yëgee ci xol li ngay gëm fan la nekk ci xol sa bëgg-bëgg fan la nekk ci xol innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda yàlla nee na dañoo gëmoon seen boroom xam ni li ñuy dund contre nature la man tam ma jàppale leen ci loolu inna allaha la yugayiru ma bi xaw qawmin hatta yugayiru ma bi am anfusihim yàlla mënul fekk ay nit liggéeyoo daal doo fa yeeku ay nit yoo xam ne ñu dara yàlla du taw wurus du taw xaalis dafa lay wax liggéeyal pour nga mën a jariñu kon ñoom dañoo jug dañoo jug léeg-léeg da ngay dégg xale bu góor bi di wax naan xale bi dafa pare mais ñun dañu soxla ay ndaw yu pare ban façon pare mooy pare taxawu seen diine ci côté bu nekk pare xam ni islaam lu dul moom islaam moo ko gën pare xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mihna bi mu yoroon muy métier bi mu yore woon nga xam ne mooy jàng ak jàngale xam ak xamle ak mën a def àdduna mu nekk loo xam ne dafay am stabilité ba nit mën a dund am ak xam te du am problème soo ko bëggee ay nelaw du la ko may boo ci tolloo am na loo xam ne doo ko mënoo koo dund sax benn boroom xam-xam dañ ko laaj ci jeunesse mu ne ndaw jamono bi ñu toll ñaar kese la visé ñu ne ko mooy ban ak ban mu ne ndaw lu góor lu jigéen lay visé ak xaalis ndaw lu jigéen lu góor lay visé ak matériel tey loolu la ñuy dund ak wuteeg lool dina feeñ ci waxtaan bi ndaw yi fi jiitu woon seen taxawaay bi nga xam ne dañ ko taxawoon ba pourtant doon nañu foo comme ni nga ko waxee léegi mais ban façon foo borom bi subhanahu wa ne wa rabatna ala qulubihim is qaamu fa qaalu rabbuna rabbu samawati wal ard lan nad'uwa min min dunihi ilaha laqad qulna idan xatata taxawaay bi laa ci soxla li tax ma indi aaya bi mooy taxawaay bi laa ci soxla dañoo jugoon taxaw ñun fii Sénégal suñu habitude mooy dañoo mën a werante mais wax rek muy dem daa war a jeex is qaamu dañoo taxaw taxaw temm ci seen esprit dañ ko defar xam ni xalaat dañ amoon bu njëkk ba dañ ko war a changé beneen xalaat mu yàlla moo fi nekk dañoo taxaw temm ci ne ñoom système bi am ci seen dëkk ñoom ñoo ko mën a changé ñu changé système bi nga xam ni bëggoon nañ ko dund ñoom ba changé waale sax réew ma moo tax yàlla jàppale leen ñu xam ni benn yàlla rek moo fi nekk mooy ci moom asamaan ak suuf kenn waru koo boole ak dara te gis nañ ni boobu ñu ngi jaamu ay xërëm tey ñun jaamuñu xërëm mais màdd la ñuy jaamu matériel tey surtout bii tey ku ci am doom bu jigéen boo nëbbee portable am wallaahi day feebar tey ku ci am doom bu góor boo jëlee portable day am problème paaka ñaari boor la am na étude yoo xam ne mënoo ko xool lu dul fii nga koy jëlee doo ko duñ la ko bindal ci tableau bi ci école bi maître bi du la ko wax du la ko jàngal dangay ngay dem def say recherche am na solo mais est-ce que jumtukaay bi ñun ñi ko defar tubaab yi sax ñun niñ koy utiliser ñoom duñ ko utiliser noonu deux suñu mag bu nekkoon Australie bekkaay la tuddoon dafa génn àdduna dafa woo sama papa ne ko papa est-ce que xam nga ni téléphone day joxe cancer 2002. ba temps yi lañ commencé gisaat gisaat ci réseaux sociaux yi ñuy wax 30 minutes rek boo ko yoree portable wuyu ko ci li muy def ci yow ñun tey gis nga chaque jour ñu indil ñu bu bees bu dee def ñuy jëriñ baax na mais whatsapp xale bu góor bi xale bu jigéen bi rek kalaam faarit wax yu ñàkk fayda ay Instagram ay yoo xam ni am na loo xam ni mun ta ñàkk mais am na loo xam ni mun naa ñàkk. yenn application yoo xam ne dañ la koy defal ba pare yow ñi ngi lay rakat te bàyyiwuloo ci xel ñi nga xam ne ñoo fi indi téléphone li ñuy gañe ci ay millions ay milliards kenn xamul nu mu toll man rek chaque jour bi fi bi ma yor chaque jour damay jënd crédit 1000 francs weer bi day ñaata la at bi ñaata la boo koy jëriñoo ci beneen côté sax amul benn problème li ma ci jublu rek mooy ñun bëgg nañu am taxyiir fii ci suñu réew il faut ñu jug taxaw taxawaayu ndaw nuróowul ak taxawaayu mag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam koroog bi mu toogee ak saxaaba yi di leen waxtaanal aljanna saxaaba yi tiit kontaan ndax fu mu waxee aljanna dina wax safara mu dalale seen xal seen xel juróom-ñaar ñoo xam ne ëllëg yoomal xiyaama aljana mooy seen kër xam ngeen def ci bokkoon wa shaabun nashaa fi ibadati rabbi ndaw loo xam ni daa bàyyi lépp dëgmal boroomam xam ni àdduna ay ndaw ñoo koy tabax tey ubbi entreprise am buy def publicité ay ndaw lay wax ku am âge bii ay vingt ans 30 jëm kaw mais ku am 50 ans jëm kaw doo ko dégg ndaw li muy représenté mu moo rëy ay bi su ma ko indee xam ngeen lu tax mbokk yi mooy yàlla bi mu cité ay ndaw daa cité seen taxawaay mooy taxawaay bi da ngay dugg yow sa roq mën a kanam xool est-ce que man ni may dundee nii man en tant que ndaw est-ce que maa ngi contribuer ci sama réew pour mu am changement bi ñu bëgg réew am ko wala déet day nekk benn question boo xam ne ku nekk daf koy poser boppam nekk ndaw rek jàpp ni doo faatu ba tax lu la neex def benn waykat nee na bëri na ay ndaw yu yaakaar seen gudd fan fekk ràbb nañ seen càngaay ba teg ko ci marché bi di ko jaay bàyyi wuñ ci woon xel biiram a doon métti boppam daa accidenté nga yaakaar ni rek yow moom bu asamaan si di wadd da nga koy téye ay ndaw ñoo fi nekkoon démb yu pare ñooñu ñoo pare woon dañuy jël ay moo def ko ay jeu te duñ ci bàyyi xel xale bi dafa pare ki pare mooy ki pare taxawu diineem xam ne yàlla rek moo fi nekk ñoom démb li ñu doon jaamu mooy ay yàlla ñun tey dañuy jaamu portable boo ko ñàkkee am nga problème dañuy jaamu xaalis léeg nga triandé léeg-léeg nga fen dañuy jaamu jigéen léeg-léeg xale bu jigéen bi jaral la nga abandonné say waajur dañuy jaamu góor léeg-léeg xale bu góor bi ñu tere la ko nga ne tey nga dee temps yi rek lañuy wax benn xale bu jigéen bu xaru ki mu doon bëgganteel dafa nekk géwél biñ demee ba ci jàkk bi jouru maye bi mbokk yu ñëw ndekete seen géwélu juddu la xooma seen maam yu fa tase ñu nekk di xamante ndekete ñooy seen géwélu juddu ñu annulé mariage bi xale bu jigéen bi dugg néegam naan ay comprimé dañu ñëw rek fekk mu faatu est-ce que su amoon taqwa est-ce que su xamoon li koy xaar ci àdduna est-ce que su yëgoon ay responsabilités dina xaru noonu bazar de dundam ndax góor yii buñ mënoon a wax di nga ci dégg boo xam ne dina wax musiba naaru laay yu doy waar la ci xale yi di def néegi gis nga réew xam nga lu koy doxal jàng émergence bii ñuy wax jàng ak xel mu sell moo koy defar waaye li koy tingoom mooy diine adduna bi mu sosoo ba tey ñi ko yor ku nekk xam nañ ni <laughs> du ñu ay nitu diine mais fan lañ jëm ak ñun chaque jour lu gën a piir la ñuy dund mooy soo seetloo année bi nga génn mooy gën a neex année bi ñëw problème yu bari musiba yu bari dee yu bari yu bëree bëree bëri lan moo tax li waroon def dañ koo defatul léegi li ñu santoon dañ koo bàyyi moo tax ndaw yi fàtte nañ ni benn bindkat dafa bindoon lu am solo jëmale ko ci réew yi nga xam ni dañ leen di tuddee sous-développé man damay wax ne xam naa ñun Sénégal yi ñun ñun sénégalais ñun lañ ko waxoon yaa xaw mu laa tatakallamu innal kalaama muharramu naamu wala tastayqizu ma faaza illa nuwamu wa taaxaru an kulli ma yahdi bi an tataqaddamu wa daaw tafakkura jaaniban fa charu bi an tatafakkaru sastin ñu ngi lay ziar sas ñu ngi lay nuyu bu baax benn bindkat dafa bind ne ee eh, bu leen waxati ñun ñoo leen di waxal tey ndaw li fii référence am bi muy xool ba ci ay waxam mooy franc-maçon bi benn jigéen bi mu tànn eh, teg ko ci kanamam ne ko xoolal kii nag léeg mu nekk góor léeg-léeg mu nekk jigéen te léegi dañ dañ koy jaar ci li nga xam ne moom mooy musique gis benn xale bu góor boo xam ni musique sain la dañ koy jël ngemb ko ci moom ay doom la xale bu jigéen bi toog seen kër di dégg moom ci moom lay jàngee ay kàddu yu muy wax moo tax chaque jour ngeen dégg wax joo xam ne suñuy maam xamuñu ko woon fii ngay gis ki wax ne ba mu yàgg xam ne ko xanaa dee nga fan la jëm na góore na ji na góore bu neexee nga jigéen ko góor mi nga xam ne en tant que góor ku ñu doon wax góor jigéen bu njëkk ba da ngay dar sa nopp da ngay tiit mais tey nekk góor jigéen dafa mel ni amul sax bàkkaar te pourtant dafay jóge ci kàddu gi nga xam ne dañ la koy jox ndànk rasul fikri yi lay doon indil la benn film boo xam ne góor jigéen daf cee nekk exposé la koo xam ne dañ koo xewal moom moo xew xam ngeen temps yi ki xew xam ngeen ko Rihanna nga nam franc la maasum nii moo leen jox alal ji ñu am booy xool seeni i clip safara yeeg bët yeeg léeg-léeg gis xale bu bu fataw def nii loxo yeeg def ay façon façon franc-maçon te doo ci bàyyi xel léeg-léeg jigéen bi def ko yi dañ lay indi exposé la ko jox la ko nga def ni yaa ci nekk soo solul seen col xewloo soo waxul seen waxin xewloo soo doxalul ni ñuy doxalee soo ko doxalewul xewloo mais réew moomu fan la jëm réew mi actuellement Sénégal bu demee ba ñuy wax ne tey franc soo nga xam ne da ko daan dégg benn benn te ñu te kenn du ko sañ a wax ci kaw de tey bu ñu demee ba osé di fi def seen réunion ngeen xam ni nag fan lañ jëm ñun tey ay nan ma fan. te ci gën a métti mooy ndaw li ñuy jël ndaw li nga xam ni ndaw ak xelam ndaw ak dooleem ndaw am ak ak dogoom ndaw ak su buggee dara ni nga xam ne noonu la cay demee kooku la ñuy jël formé ko teg ko sa kanam nga yaakaar ne kii mooy sa royukaay ak métti. aka doy waar ndax lan xaalis dafa des fois damay ne nit ñi am na ñoo xam ne duñu xalaat yoo xamuloo kañ ngay dee te xaalis bi sooy dem doo ko yóbbaale nga mën a def ay mbir yoo xam ni mais nag xam nga comme dañuy wax ni ñoom boo xam xasee ba signé pacte ci ñoom bañ jël liñ soxla ci yow sa deret am na yoo xam ne boo koy def day mel ni doo toog tey ndax deret boobu dañ koy am lu ciy def ci yow. ala sa ama yafaaluun ñaaw nañ ñi nga xam ne noonu la ñuy defee actuellement mu mel ne àdduna dañ ko tëj ci benn néeg ay nit di ko xalaatal ci diggante juif ak yahud danga ciy boole ak góor jigéen ndax ñi gën a mag ci ñoom tam ay góor jigéen lañ soxlawuñu jigéen seen moroomu góor lañu soxla ñu di ci amee nag alal yoo xam ne kenn xam nu mu toll ay ndaw ñooy taxaw pour mën a soppi xew ci seen réew moo tax ndaw yi nañ yëgaat seen responsabilité taxaw débat yi débat rek bàyyi noonu du ko changé daf lay jaral nee naa la dafay ànd ak ñaar azima ak tadhiya da nga ciy am dogu ba pare am ci mu jaral la sa lépp daal soo dewee da dem dem aljanna beneen ndaw boo xam ne moom exemple góor ñépp la def naa xam ngeen ko konti yàlla yusuf alayhi salaam tey sa maam daf doon wax benn kàddu dama koy rus a wax sax ndax man góor ñi samay xarit xarit lañ daf doon wax góor yiwul buy xool jigéen lenn rek la opté ci moom waxu mag la mais nag bëri na lu muy firi xam nga bu yàlla bindee bu jëlee comme ni ko français di waxee noir sur blanc bind lu ñu jël alquran bind ko ci feuille bu weex tàll bàyyi ko ci mu nekk loo xam ne signature la ilal abat aaya yi kenn du ko jàng muy romb noonu mais danga koy dégg xam nga war a waraawadathu llati hiya fii baytiha problème góor ñi la nañ ma baal très rarement la ci góor di mucc li may wax déglu leen ko bu baax jigéen bu am alal am daraja am fu ko nit ñëpp teg Zalixa ci jamono boobu dafa nekkoon princesse moo nekkoon jabaru euh, buur ci jamono boobu mais ba pare amoon taar moroom jigéenam ñëpp dañ koo ñeewoon bi mu woowee yonte yàlla yuusufa alayhi salaam dugal ko néegam très rarement góor mucc ci boobu piège xanaa yàlla dimbale na mais yonte yàlla yuusufa alayhi salaam taar bi nekkoon ci moom ba yaay Zalixa mu attiré ko mu fàtte sax moo ko yaroon jigéen dafa gàtt xel moo tax jigéen li tax yàlla boolewul ñaari jigéen wala boolewul ñaari góor boole jigéen góor ak jigéen jigéen lu mu am am xam-xam lu mu yeewu yeewu lu mu muus muus am benn faiblesse góor surtout bu nekkee kilifaam yàlla moo ko bindee noonu noonu noonu la ko namee góor lu mu am am am daraja lu mu foor foor foor am benn faiblesse jigéen bu nekk ci moom li tax ma wax lii mooy yuusuf borom bi subhaanahu wa taala moo ñu ko leeral walla xat hammat bihi wa hamma biha loolu dafa leer borom xam-xam yi xurtu bi soo demee ci moom dañ koo tas dañ ni yàlla waxul ni euh, yuusuf daf ko xemmem moom en tant que jigéen mais góor la dafay soxla jigéen li tax mu jiital Zalixa Zalixa moom moo woote wala xat hammat mu ne jigéen ji moo amoon moom benn xemmemteef ci moom boo xam ne la mu bëggoon bëgg na ko am ci moom mais Yuusuf xemmemul Zalixa mais góor gi mu nekk góor mooy góor dafay soxla jigéen law laa anta a burhaana dañ koo firee nu bari nee nañ dañoo wane ki nga xam ne moom mooy yàqu papaam mu gis nataalam mu ne ko laa taqrabu zina am ñu ne dafa xool ci benn bërëb gis ñu bind ko fa des fois ay taawilaat lay doon mais lu mën a am rek yàlla nee na am na lu tax lu ko empêché mais defe naa boo jàngee aay bi ba mu jeex mooy li ko empêché mooy dafa préparé woon boppam innahu min la muxlasin daa préparé woon boppam en tant que ndaw ndaw dafay préparé boppam préparer sa bopp mooy ndax mooy sangu ba set solu boo bëggee dem ci xëb yaa ngi préparé du loolu préparer sa bopp mooy en tant que man ndaw àdduna bii yàlla daf ma fee indi dama nekkoon bébé démb am fu ma tolloon mënuma dara tey may dem ba nga xam ne li papa mënoon maa ko ko dàq ci biir kër gi li yaay man maa ko ko dàq tey kon ban façon taxaw laay taxaw kon sa xel ngay utiliser pare ci wàllu mental xool sa bopp xool bu baax a baax pare ci côté yépp jigéen bu doy waar léeg-léeg góor baax lool mais jigéen yàqal ko àdduna piège yi dañoo bari te jigéen dafa bari dafa dafa dafa rëy xel ñaari pexe la yàlla tudd bu seytaan ak bu jigéen bu seytaan nee na amul doole ndax yàlla da koo teel a avertir ne ko inna ibadi laysa laka alayhim sultaan am na ñoo xam ne mënuloo leen dara même bu ñu juumee tamit dañuy rectifié waat ne yàlla baal ñu yàlla jéggal leen te am na giraawaar yoo xam ne duñ ci mës a dugg du alal du jigéen du poste dara du leen ko jaral am na ñoo xam tamit du góor du alal du dara dara du leen ko jaral mooy ndaw yi nga xam ne dañoo pare xel dañ koy utiliser moo tax yàlla suy wax borom xel yi lay waxal wa maa yatazakkaru illaa ulul albaab ñi am xel la yàlla di waxal pour wan la ni ndaw ñaar yi nga xam ne daf ko gën a opté léegi ndax thème bi mooy place yi ndaw mën a fowee ban façon fo dañu gis tey ak actuellement mooy foofu xale yi bu njëkk ba ñun boog ñun bañ ca tolloo ñun liñ daan fowee mooy ay palaal yi nekk ooyo ay wure ay tam mais tey portable la xale yi di fowee nouvelle technologie tey yow da am sa portable loo ci xam dara mais sa doom moo la ciy génneel loo xam ne yow xamoo ko ci tey façon fo bi ñu leen indil mu nekk rasul fikri boo xam ni moom dugg na sax ba ci mag ñi ndax tey kër goo dugg ñëpp dañuy concentré wu léeg-léeg nga nuyoo kenn du la dégg ku nekk nga yor bii rek nga nii non portable man daf ma jaaxal seytaane bu mag la dangay ngay nuyu nit léeg-léeg gis nit kuy dox ci mbedd bu njëkk ba soo gisee kuy dox te waxuloo kenn danga naan day waxtu léegi kenn waxtul kenn day waxtu ma nga takk écouteur am ma ngay wuyu léeg gis koo xam day day day gesticuler sax di wax di dem di def nii dof tigi te bàyyiwu ci xel il faut xel yi ñu nàmm ko ko fi nga xam ni moom moo neex borom bi subhanahu wa taala fam itam dañ koy organiser gis nga islaam aleykum salaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp jàng nañ ci ne mus na tingoom yaay Aïcha radiyallahu anha amira ñu ngi lay ziyaara Fall ñu ngi lay ziyaar Fall mus na nga yaay Aïcha ci benn uh, fo boo xam ne waa xabasa ñoo doon fo seen seen cosaan la woon mu tingoom ko muy seetaan est-ce que fo moomu tey mook làmb ñoo yam est-ce que boobu mook marché yi ñuy organise ñoo yam islam xam na fa de ndax nit ku nekk dafa am culture nit ku nekk dafa am dafa am loo xam ne moom mooy cosaanam li fekk mi ngi tege ci tegandaay du xaraam mais tey sunu ndaw yi ban façon foofu chaque jour nga génn clip bu bees est que pas moo koy génn ay xale yu ndaw tey ku nekkul animateur ci xale yi ñenn da nga gis koo xam day jàng ba am ay diplôme mais dem opté nekk animateur musique lay jaaxal léeg-léeg yow mi nekk ci média dañ indi ay demande koo xam ne jàng na man animateur laa bëgg a nekk danga naan mais kii ay naa xlu ana xelam animateur teg wayu jàmbur tàcc fecc maa ngi koy may diw maa ngi koy may diw est ce que loolu liggéey la xale bu jigéen bi ne moom animatrice la bëgg a nekk kii ne moom waykat la bëgg a nekk nga commencé woy sa baat neex ñu wala am fu ñu jaar ak yow nga nangu ñu lancé la def la benn franc-maçon sa ko xam sa papa du nga nekk ci loolu commencé changer seen situation kër ñu ne sama doom tekki na la hawla wala quwwata illa billah tey lii la ñuy dund dugg ci jaayum dorog xale yu bari yàq nañ seen xol seen xel dorog jaay dorog maa bëgg a tukki gis ngeen façon tukki bu nekk xale yaa ngi koy tukki tey lan lañ ci jublu damay wax ni nit buy def dara dafa war a xam lii lan laa ci jublu lan moo tax ma koy def comme nit ni muy laajee boppam lan moo tax yàlla bind ma limaza xalaqana allah lan moo tax yàlla bind doomu aadama woo malaayika yi nga xam ne ñoo ko dàq jaamu foofu ne leen inni jaa'ilun fil ardi xalifa kii laa bëgg mu représenté ma ci kaw suuf sa présence ci kaw suuf lan lay wund moo tax ki bind téere boobu maza yaani intimaa ilal islam defe naa fatx yekkan la sa bokk gi nga bokk ci diine lan lay wund yow yaay kan yow en tant que yow bi yow yow ban façon ndaw nga musique drogue jigéen mu dee jigéen góor est-ce que loolu mooy fo tey fo yi ñuy gis fii Sénégal làmb dañ koy tuddee fo làmb kenn mënut a wax ba mu dagan làmb kenn mënul wax ba mu dagan ki futteeku ngay gis a awraam te góor ñu xam awraam fi mu commencé ak fu mu yem mais loolu nga koy seet nga ko di toog di ko seetaan loolu xam ngeen nii xaram ga dafa jégg dayo sax nag li gën a doy waar ci mbir mi mooy euh, buxaaba bi nekk ci biir sixr bi non seulement bokkaale yàq sa moroom am na làmb joo xam ne bi mu paasee ñu wane ñaari mbër ñu toog kenn ki def ni morom bi dooma ma dimbali nga dindi li nga def nekkatuma sax góor boobu fo est-ce que dina ko rafetlu lu nekkatul fo làmb moo tax kenn amul benn boroom xam-xam bu mën a toog layal làmb ba làmb dagan dafa xaraam football lañ doon wax gis ngeen match yi ay Barça bu ñuy football day mel ni Sénégal ñoo ñoo ñoo ñoom seen joueurs yi ñooy football dafa am ñoo xam dañ koy dund. xam ngeen ginnaaw kura boobu ginnaaw bal boobu wallahi franc-maçon gis ngeen gis ngeen xaalis ban jour bi ñu jënd di ko fay ay semaine ñaata milliards semaine ñaata million <coughs> maa ngi jégalu damaa sut mais alal jooju franc-maçon yi ñoom ñoo organisé loolu. def naa seetaankatu football yi sax xam nañ ni ginnaaw bal boobu di ca nekk mooy ay franc-maçon franc-maçon yi ñoom ñoo ñoo ñoo instauré li nga xam ne moom mooy football ñoo koy financé danay jaaxal ñu ne tey jour bi fii la nekkoon tey dem na fële ñaata lañ jënd nañ ko bañ na ba jënd sax la ñuy wax dañ ko jënd ay waay alaa yaalamu man xalaqa wa huwa latiful xabiir ki bind mooy borom bi subhanahu wa taala jënd nit tax bi ñuy jaay nit ñi libi ñu koy bañ ma ne kon nañ changé waxin bi kon bu ñu waxti jour bi dañ koo jënd parce que libi dañuy jënd ay jaam jour bi dañ ko jënd di ko fay ana différence bi. dama ko waxal ne 358 millions par semaine lay am. 358 millions par semaine. Alexis Sanchez. Alexis. fan lay football moom. Barça wala Real wala Real Madrid wala fan. Manchester la Manchester. semaine bii rek Manchester. <laughs> ndeysaan nga xam ni dañu egg ci benn monde boo xam ne. man des fois sama waa kër dañu may mere ci seetaan man leen kenn du ko fi seetaan. da ngay jaaxle da ngay xoolal dañoo muus dañuy jël sa xel moment bi nga waroon toog am leneen loo xalaat pour développer sa réew dañ la faa dugalal leneen te nag dafa dem ba nekk benn virus boo xam ne pour nga mucc ci dafay jafe. man bu làmb am na am na am na ay temps yoo xam ne làmb su musaana am dama amoon ay mbër ne kii mooy sama mbër mais dafa di moom yàgg ma woo xale yi ne ku ma déggit fi nga ne kii laa faral di nga xam mais da dem ba da ngay day nekk benn virus day mel ni dañ la ko pikiir nga nga ngay am palpitation bu sa mbër moomu nga askanal sa bopp suy bëre mais lan moo ko fi jar ma walee na leen léegi sa bopp laay commencé ku fi faralati mbër ci kër gi di nga xam léegi làmb lay am sax danga koy fàtte parce que lépp ñun yaay yi tamit dañ ci am ay part de responsabilité ndax bu ñuy wax ndaw ci ban ween la nampé kan moo ko toog pantal ci ban kër la gimmee donte nag actuellement dañoo toll ci jamono boo xam ne la daloon noox daa dal ñu bëri ci ñun mooy da ngay yar ba sonn mais système bi moo leen di changé da ngay yar di orienté di yedd mais dafa am lu mel ni xale yi dafa am lu leen ëpp doole daf leen a fëkk moo tax xamuñu fan la ñuy taxaw ak a métti nag ak a métti nga yar sa njaboot ñu nekk ndaw war laa représenté ndax doom dafay représenté waajuram mais ñu dem ci beneen côté wala ñu mel neneen neexul ci xol mais lu mën a am moo dina am na ay fo yoo xam ne am na fi islam du ci d'accord islam am na ay fowam te dina leer ci biir waxtaan wi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ndaw moo tax mu teel koo canaliser yonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa xam ndaw li muy représenté moo tax fu mu musaana toog di waxtaan day gën a bàyyi xel ndaw yi ndax sax moom ndaw ñi ñoo ko jàppale woon bi coow li baree ñu ne màkka euh, dafa dafa dafa dem ba nga xam ne can yi dañu commencé chair ñi ne déedéet waa ñi nga xam ne ñoom ñooy waa mustalahul xadiis ñu ne xadiis bii diina la ko yonent bi waxe am ñu ne màkkatal mukarrama la ko waxe ndax boobu dem na ba nga xam ne xale yu góor yi dem nañ ba can yi cher na ci ñoom ñu am problème léeg lekk nga gis koo xam ne day làqatu du yërnu jigéen di xool jigéen bi romb genre yooyu yonent bi daf leen a dajale woo leen yaa ma'shara shabaab man istataa minkumul baa'ata falyatazawwaj al baa ñu jàng arab xam nañ lan lay firi mooy condition yi réunir ci yow pour nga mën a yor soxna nga wér am xel am wéru lal bi baa am xereñ boo mën a téye jigéen ndax jigéen fayaa fayaa nii rek du ko du ko du ko téye léeg mu dëbbala li njaa bu mag yow jëkkër ji te doo ko xam ak ñoo bëri pexe xam suñu benn oustaz bu xaw a nay ko bëggee ndax day jël benn feuille rek ci ay français na ko ordonnance a nay <laughs> pour wax ne jigéen dafa bëri ay pexe mais bi daf a woo canaliser leen waxtaan ak ñoom ne ee yéen jeunes yi lu tax waxul yaa machara rijal yaa machara yéen ndaw yi ci toll tey soxla jigéen nit day soxla góor day soxla jigéen moo tax pour sax ñu mën a xam ni góor gi majeur na jigéen bu majeuree li koy wane mooy dafay gis mbaax mais góor bu majeur day tëdd géwént li ñuy tuddee géwént am di jëflante ak jigéen yàlla moo bindee noonu góor ak jigéen ku nekk day soxla moroomam avant islam bi ñëw amul woon organisation moo tax doom doon juddu kenn du xam kan mooy baayam mais islam dafa ñëw organiser ko jaare ko ci sëy sax yont bi woo leen ne leen eh, dama ni làqatu bi di def tasallul di di xool jigéen ñi di def ay façon bàyyi leen ko ku mën a denc yéen soxna na ko denc mu mel ne dañ koo laaj sang bi sallallahu alayhi wa sallam lu tax fa innahu aqaddu lil basar wa axsanu lil farj day tax facteur bi gën a garaaw ci indi bàkkaar muy bët doo ko teg ci jigéenu jàmbur ñoo commencé gun thème bi <laughs> nee na waxtu bi ñu <laughs> ngi jéggalu <laughs> yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam garaaw maa ngi koy tënk yonent bi ne sallallahu alayhi wa ku mën a denc yenn soxna na ko denc day tax sa bët doo am bàkkaar bi nga xam ne ëllëg dañ la koy mbugale te bët moom moo koy waral xam nga benn bindkat dafa bind bët mooy facteur bi gën a garaaw ci ci ci ci ay bàkkaar fa nasratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawidun fa liqaau bàkkaar kii sàcc du dafa xool day observé kër gi muy sàcc bëccëg bi soog a dem boutique bi muy dajj da koy xool soog a dem kii njaaloo dafa xool ndaw si xemmem ko moom moo tax moo tax ku yàlla jël ay bëtam mu muñ ko te yàlla tax ëllëg yomal xiyaama yonte bi nee na yàlla nee na rus na taxawal teg say jëf di ko pëse inamaa yuwaffa inamaa yuwaffa saabiruun ajrahum bi xayri xisaab ñi muñoon nattu yi leen yàlla tegoon directement àjjana la ñuy jël bët facteur bu doy waar la mu ne day tax sa bët doo ko teg rek bu ngoon jotee rek wala nga dem ci école bi xoogaliku tuwaaju rek xale bu jigéen bu romb nga teg ko ko xool et puis da lay weex bët da ngay naan diw dafa weex bët doo xam koy tànn gaawal nga tànn kenn nga dem man caa dimbanikoo moom tam mu dimbanikoo ci yow ndax yonent bi day wax ni ñaari woy dencante sallallahu alayhi wa sallam bu ñu àndee ñoom ñaar rek toog ku nekk xool moromam bëtu cofeen yàlla nga toog te xadara ba di leen xool bëtu yërmale yërmale yàlla ci jaar mooy raxma mooy baraka mooy effacer la ay tuy ay ay bàkkaar yëkkatil la ay yiw mun day tax tamit sa pëy doo njaaloo njaaloo mi nga xam ne tey du dara pour ñun du dara njaaloo mu tasaaroo moo tax tey déggi bari njaaloo mi nga xam ne tey dañ ko médiatiser njaaloo mi nga xam ne boo ko bëggee fa nga koy am ñëpp xam nañ ko léegi mu dànkaafu góor ñi ne nag su fekkee nag condition yi réunirul amaguloo xaalis di nga soxla sa moroomu jigéen olof nee na bala nga naan naan danga fay nekk nee na ngay woor ba man lam yastati fa alayhi bi soom fa innahu lahu wijaa soo ko mënul del woor dina tax dina la gàllankoor ba shahwa bi ngay am jëmale ko ci jigéen boo xiifee dootoo am ndaw yi ñoo jàppale woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam démb taxawu ko ñoom seen fo dañ daan fo yonent bi su musaana julli ba pare suba ibnu abbas ne na day tourné jàkkaarloo ak saxaaba yi bu ñu defee seen baaqiyaatu solihaat def seeni awraat ba pare ku nekk day nettali ayaamul jaahiliya ni mu ci nekkee woon ñu ne yonent bi da daan reetaan sallallahu alayhi wa sallam loolu folo dañ daan fo da jàngale woon na tamit na leen dajale leen benn côté ñu fay nekk di jàng nga xam ne moom mooy ram yu maanaam sànni tiir ñu koy tuddee comme tey ñu jàngale naka ngay naka ngay tiiree pistolet daf leen doon wax nañ jàng feey tey gis nañ yooyu yëpp dañ koy def léegi ay jeu ki dàq feey diggante Gorée ak dakaar defe naa ren ñaari sœur ñoom ñoo ko jëloon yooyu ay fola islam terewul fo mais ban fo moo tax laaj ak lahwu ñoom ñaar sax duñu benn moo tax yàlla bi mu ñuy dànkaafu afa xasibtum annama xalaqnaakum abasan baatu abas ñëw ñoom ñetti façon laib lahu ak abas ñett yëpp bu nekk dafa am lu muy représenté waaw laib ñu ne xale moo koy def abas ñu ne ndaw li ci toll moo koy def lahu magum jëm mu am moo koy def mooy fo fa nii nii rek fo mais foo bi gën a garaaw mooy foowe foowum jigéen nañ ma baal foowe foowum sexe fa kàddu yu déplacé fa yu doy waar tey da ngay gis ni bu njëkk ba danga daan am foo war a dem am koo àndal dangeen di dem sañu leen sax am na yoo xam ne sañu leen ko mais tey xale yi ak ñu osé te sañ ñi ngay dégg ñu leen di tudd ci diine ñoom ñëpp ay ndaw lañu woon dañ lay wax ne Aboubacar as-Siddiq paasewul woon 37 ans bi muy dugg ci diine Omar 27 ans la amoon ci temps yooyu Ousmane 34 ans la amoon Ali moom 10 ans la amoon bi muy dugg ci li nga xam ne moom mooy diine al mubashirina bil janna ñi nga xam ne yàlla daf leen a bégalee aljanna ay ndaw la ñu woon Talha 15 ans la amoon Zubayru ibnu Awam 17 ans la amoon Saad ibnu Zeyd 15 ans la amoon Saad ibnu Abi Waqas mi ngi amoon 17 ans Abu Ubayda 27 ans ñi ngay dégg ñu leen di wax ci diine bu ñu ko temps bi mayoon koo dégg tey ñu tudd ko ci diine di ko kañ nga defee ne dafa toog ba am 50 ans ñu soog koo kañ bi muy nekk ndaw lu ci sóobu yàlla jàppale ko yàlla indiwuñu fii pour ñuy caaxaan ak di fo foo dañ koy organiser mun nga ànd ak sa waa kër ngeen dem palage ayul tey la samedi ànd ak sa waa kër ngeen dem plage ànd ak sa waa kër yóbbu leen ci ay place ñu dem xool visiter dem lu mel ni Gorée dem parc an yooyu aayul mais ñun xam nañ yéen sax bi ngeen lay sant waxtaan bi xam ngeen fo bu baax ak bu baaxul nag fay baax ci ndaw xam nañ ko li bon ci ndaw xam nañ ko ndaw li sax da koy def pare xam ne lii baaxul tey xale yu góor yi am na ñoo xam ne seen fa mooy lan dajaloo jënd seen yàmbaa dem toog di tux ñoom ci loolu la ñuy retrouver seen bopp tey jigéen bi mi ngi nan lay naxee xale bu góor bi fan lay jaar ba mën a am xale bu góor bi façon naxante boobu pour ñoom loolu fa la nga ànd xale bu góor bi mu luye benn appartement pour benn journée nga nekk fa ba ngoon nga ñëw ne fekkum sa yaay du xam dara ci li nga nekkoon fekk toj nga dëkk bi ñu ngi leen di jéggalu waxtu bi ñaan borom bi subhanahu wa lu ci jub yàlla nañ ko jëriñoo ñun ñëpp ku ci nekk safaan man la mu ñëw ci man te bañ ngeen bañ ci am dara yéen ñu ngi nuyu sunu mag ñi nga xam ni teew na fi nekk sunu amira su koy faal bokk ci ñi nga xam ne def na ci man formation macha allah ak sumu sœur bi mu àndal ñu ngi leen di ziar bu baax di leen dalal jàmm di leen wax ni nii la mais ay étape la dafa jot ci ndaw yi ngeen dajaloor taxaw di dem ci presse bi di génnee li ngeen war a wax ngeen koy wax li ngeen war a def ngeen koy def àdduna bi Sénégal bi surtout fi ñu nekk bu leen yaakaar ne ay Ablaye Wade bi nga xam chaque jour ñu ko ñaar fukki yoon li fi doxal dara gis nañ ba fi nekkee li mu fi def keneen ak keneen li koy doxal mooy ndaw lu gëm diineem di dund li nga xam ne moom mooy islaam te du ci ragal lawmata laa'i aqulu qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu